état la muy jënd dama def képp koo gis fii muy inauguré la muy inauguré moomu ci dara état moomu ci tus. ok ñun li ñu wax mooy ne état yi créé les conditions dañu seen ministre de ñu ñu ñu kii. waaw dañu créé les conditions bu ñu ko defoon parce que du jeex bu yàq yàq yàq sa dërëm bi ci dem.

fii état du Sénégal jë jóg na pour renouveler parc par parc euh, automobile waaw ba mu àndee tataay waaw c'était pour renouveler parc automobile bi waaw car rapide ak jaga bañ a daw loo ci gis est-ce que tere nga leen dama ne tataay ba mu koy andi Sénégal la pour waaw mais renouvellement boobu mujjul am parce que. yéen tamit yéen en tant que transporteur. Euh. tata car rapide yi ngi fi. wóo oh, de xam nga xam nga yow da ngaa dund dama lay wax mu leer ci yow ak ñeneen. kaar njaga takaa boobu remplacé na oto. na oto. waaw moo xam njaga njaale moo xam kaar ak mhm. gis nga fañ koy defee. état day ñëw teew. opérateur bi ñëw teew. consommateur bi ñëw teew. waaw am ba léegi. mais bëreetul oto yi manqué. oto war a gën a ñu ngi gën a bees. ñu a bees tata euh, na yeneen yu ñëw du dugg ci circuit bi. waaw benn bu jógee bitim réew ñëw fi. li fi nekkoon danga fi nekkal. Ndiaga Ndiaye amul benn Ndiaga bu jógee bitim réew amatul Ndiaga Ndiaye Sénégal dong la am léegi amul ci benn réew kaaraat bi amul ci benn réew kon lu mu bari bari fi la nekkoon dañ koy tëgg ko tëggaat ah, donc kon gars dañoo dem saa ñu saa ñu yóbbu ko feeraay xaw ma ñu defaat tëggaat ko ba mu bees non non non mooy loolu de mooy loolu dama ne hmm. ña boo gis ah, tataa boo gis ala dégg dama ne tataa boo gis rey na benn njaga baa benn dañ koy brouillé sa kanam yow devant mais oto yi ñoo bari ah donc bari woon démb dafa bay mais état bu ko neexoon balaa décembre ñu renouveler lépp. ñu dindi fi comme ni ñu waxee dañu waaye ñoom dañoo waxoon dañuy dindi cette place. xam nga li doon bu doon bu doon di ñëw ba kaar ak jóge bitim ñëw ñu ne dañuy yokk parc bi mais amul ab kaar ak doo amul ci amul ci àdduna. amatul kon su ma comprendre bi ñu bi aftu ba léegi. waaw. njaganjaay yi doon daw ñooy daw. ñoo fi nekk. car rapide yi doon daw ñoo fi nekk. benn yokku amul benn bu bees amul. mënoo ko am fenn ci àdduna. am dëgg laa la wax bo boobu ñu tapee nag boobu demagul. boobu ñu tapee mu mel mu wees boobu demagul mais bu demee dañ koy dagg machine baa ngi taxaw feeraay la jóg. ok état day ñëw taxaw parce que dañ doon dañ doon woo nit ñi ne ku yor car rapide indi sa car ñu jox la. ñu jox la am ay ok noonu lañ ko doon def. AFTU. Mhm. dafa am organisation boppam. tout à fait yow bu ñoom il faut ñu indi 200 ña ngay ma 200. yooyu lañ la ko laajut sa njëkk jaay ba nga yoon doo continuer ak moom di ko ko ko. te muy dëgg te njëkk jaay la wax de gouvernement bi ah. dañu ñu buy toogee dans nënk leen day dañuy renouveler parc bi te am nañ possibilité. dëgg sax ci kees gi la ñuy renouveler ñu mën a wax mais du renouveler laal sa banque yi pare nañu ko def mais mais quest la non non non non. ñun ñu soxla ko nga naan ñun la mooy politique mooy politique la la puisque li li gën a garaaw mooy nga ne léegi à part de cinq ans euh, huit ans bu may oto dugg Sénégal. non boobu moom baaxul. mais mais li ngay léegi ba pare c'est très dangereux. vouloir une chose et son contraire yow Kabare nga am ñaari bus ñu âgé dix ans ngay ni benn bi doon na ko tiitee ne dafa âgé. alors koy génne réew mi ba am dagati ko par da nga fay trois millions. amaan hmm? waaw loolu lañu def de li ma wax du duwaane may dégg te duñ ko léegi nga ñàkk sa bus fay 3 millions deuxième bus ba defoon 10 ans nga tas ko foofu yow def ko ci conteneur nga ñëw duwaan ne la wax na dugg na dugg ci sa bopp nga ñëw montawaat. mais mais góor a yow li ngay wax nii. est li ngay li ngay wax nii dafa grave sur le plan politique. parce que. pour man en tout cas ku mel ni man. Ah. dama yaakaaroon yéen a yéen ay bi. déedéet nous sommes demandeurs. mais borom sa place boo gis ma nga yenu loxo yi naa fu mu jëmee su moto bi. borom militaire boo gis mu ngi koy yenu ay loxam njëkk njaay boo gis borom ma nga koy yenu laay waxee koo gis ma nga amul kenn ku ne ma du ma amul amul mais dañ ko joxul moyens yi mu koy renouveler. Hmm.